asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaw di wax ne nag li xew Sénégal ku ne gis na ko te ñëpp ñu koy ñaawlu amul kenn koo xamante ne nii yaa ngi Sénégal wala yaa ngi bitim réew wala yaa ngi fépp ci àdduna bi te xol di neex ñëpp la seen xol naqari li ko waral nag mooy injustice bi nga xamante ne mooy daw si suñu réew te ay ndaw la ndaw ñi ñooy génn di xeex ndaw ñi ñooy dee te loolu ñu ngi koy ñawlu bu baax a baax a baax te jàmm ji nag yaakaar naa si loxo Macky Sall la nekk ginnaaw yàlla suñu boroom ndax moom mooy suñu njiitu réew di la wax ne président am na foo xamante ni bu fa réew tolloo yow yaa war a mun a jël sa ndogal yow yaa war a mun a taxaw wax sa askan te xam ne li nga doon askan bi ñoom ñoo la ko def amul kenn koo xamante nii mel na nenn te askan bi defuñu ko li mu doon moo xam mbër la moo xam footballeur la moo xam et cetera moo xam ku mu mënti doon daal kon ñi ngi wax nga delloo si sa xel ñi ngi ñaanit nga delloo si te xam ne àdduna foto naa la rek comme ni ñu ko waxee da naan sa morom naan fii réew mi toll nga nekk nit koo xamante nii sa kàddu àgg na. foo xamante ne kàddu kenn àggu fa ndax tey boo ne woon na lépp jeex lépp jeex te kenn ku si nekk tamit bu ëllëgee suñu boroom dina la laajee noo yore woon sa réew noo jiitee woon kon nag ñu ngi lay ñaan nga delloo sa xel te xam ne politique la du dara waa ji liñ koy teg metti na metti na ba fu metti yem ki taal dëkk bi kenn kese la mooy Adji Sarr booy dëkk bi dafa toll foo xamante ne nii ñu koo yàq war ñoo seetaan ku koy yàq bu dara amee nag li olof di wax rek boo gisee dara dara ko waral ay corruption de la jeunesse loolu man bi ma juddoo ba léegi musuma koo dégg si àtte mais xanaa détournation de mineur sax mais corruption de la jeunesse loolu musuma koo dégg jànguma nag mais man loolu musuma koo dégg waaw mais nag ñi ngi ñaan daal xam nga ñu delloo si xel bu baax te xam ne fii àdduna la askan bi rek moo ñu ñor leneen ñoruñu askan bi kase moo ñu ñor tey Ousmane Sonko bu ñëwoon am neneen nu mu mel askan bi duñ ko topp yaakaar bi askan bi am si moom ngalax ngalax buñ ko yàq te buñ ko tas te am na loo xamante nii bu fekkente ne def nga ko yow président sénégalais yëpp gunge la ba sa mandat di waaj a jeex kon war nga leen delloo njukkal te xam ne nit ku nekk li mu doon rek ginnaaw yàlla nit ko ko def nit ñi nag sonn na nit ñi maar na nan si bàyyi nii di jub si kenn ku si nekk war a mën a reyante pour yóbbul sa kër mais kenn mënu ko fi mu toll nii kenn mënul liggéey kenn mënul ubbi kenn mënul def dara coow li yaakaar naa deux mille vingt et la waroon a jeex mais bu ñëwee ba deux mille vingt ay bakkan di si rotaat mënoon naa ñàkk waaw ñi ngi ñaan daal jàmm Sénégal ñi ngi ñaan jàmm Sénégal jàmm lan ñu xamee jàmm lan ñu xamee te yàlla jàmm yàgg Sénégal président ñi ngi ñaan dossier bi nga jël ko teg ko suuf amul leneen lu ñuy ñaan loolu kese la ñuy ñaanal ndax jàmm dellu Sénégal ay nit nag bu ñuy jotee comme niñ ko waxee rek da ngay ñëw fekk ki nga xamante ne moom moo yor arme nga mun ko téye ndax jàmm am mais ki yorul arme saa boo ko téyee rek ay mun naa am parce que ki yorul arme du def dara ki yor arme mun na taxaw fee ko gaañ waaw kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ndegam xaj na dañ leen a déggul ñeneen ak ñeneen wax na dañ leen a déggul te yaakaar naa jàmm suñum réew moom suñu rek la mun a sasoo kon président bul fi jóge mukk ñuy toog woy wi di ñaaw ñu ngi lay ñaan nga waat xel yi bu baax a baax dellu si waat bu baax a baax te xam ne àdduna amul solo waaw li nga doon nii si ay loxo la nekkoon jóge si ay loxo dem si ay loxo jóge si ay loxo dem si ay loxo ba ñëw si yow kon ñu ngi ñaan nga dellu sa xel bu baax te xam ne àdduna amul solo li la fi dese kenn du la buntu xatal kenn du la def dara lenn rek moo la fi dese mooy seen mool te ñi ngi ñaan nga jeexalee ko si jàmm sa mandat la ñun ñoo la ko faloon comme li ñuy wax rek bu dee ñoo la ko faloon it ñun ñoo lay folli te si jàmm ak salaam lan la fale woon si jàmm ak salaam lan lay follee ñu ngi jégalu ñëpp waaw ñu ngi wax wasalaam jërëjëf asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaw di wax ne nag li xew Sénégal ku ne gis na ko te ñépp ñu ngi koy ñaawlu amul kenn koo xamante ne nii yaa ngi Sénégal wala yaa ngi bitim réew wala yaa ngi fépp ci àdduna bi tasu xol di neex ñëpp la seen xol naqari li ko waral nag mooy injustice bi nga xamante ne mooy daw si suñu réew te ay ndaw lan ndaw ñi ñooy génn di xeex ndaw ñi ñooy dee. te loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax te jàmm ji nag yaakaar naa si loxo i Sall la nekk ginnaaw yàlla suñu boroom ndax moom mooy suñu njiitu réew di la wax ni président am na foo xamante ni bu fa réew tolloo yow yaa war a jël sa ndogal yow yaa war a taxaw wax ak sa askan te xam ne li nga doon askan bi ñoom ñoo ko def amul kenn koo xamante nii mel na nenn te askan bi defuñu ko li mu doon moo xam mbër la moo xam footballeur la moo xam et cetera moo xam ku muntu doon daal kon ñi ngi wax nga dellu sa xel ñi ngi ñaanit nga dellu sa xel te xam ne àdduna foto ndaa la rek comme mu ñu ko waxee da ngay naan sa morom naan fii réew mi toll nga nekk nit koo xamante nii sa kàddu àgg na foo xamante ne kàddu kenn àggu fa ndax tey boo ne woon na lépp jeex lépp jeex te kenn ku si nekk tamit bu ëllëgee suñu borom dina la laajee noo yore woon sa réew noo jiitee woon kon nag ñu ngi lay ñaan nga delloo sa xel te xam ne politique la du dara waa ji liñ koy teg metti na metti na ba fu metti yem ki taal dëkk bi kenn kese la mooy Adji Sarr booy dëkk bi dafa toll foo xamante ne nii war ñu koo yàq war ñoo seetaan ku koy yàq bu dara amee nag li olof di wax rek boo gisee dara dara ko waral ay corruption de la jeunesse loolu man bi ma juddoo ba léegi mosuma ko dégg si àtte mais xanaa détournation de mineur sax mais corruption de la jeunesse loolu musuma koo dégg jànguma nag mais man loolu mosuma koo dégg waaw mais nag ñi ngi ñaan daal xam nga ñu delloo si xel bu baax te xam ne fii àdduna la askan bi rek moo ñu ñor leneen ñoruñu askan bi kase moo ñu ñor tey Ousmane Sonko bu ñëwoon am neneen nu mu mel askan bi duñ ko topp yaakaar bi askan bi am si moom ngalax ngalax buñ ko yàq te buñ ko tas te am na loo xamante nii bu fekkente ne def nga ko yow président sénégalais yëpp gunge la ba sa mandat di waaj jeex kon war nga leen delloo njukkal te xam ne nit ku nekk li mu doon rek ginnaaw yàlla nit a ko ko def nit ñi nag sonn na nit ñi maar nan si bàyyi nii di jub si kenn ku si nekk war a mën a reyante pour yóbbul sa kër mais kenn mënu ko fu mu toll nii kenn mënul liggéey kenn mënul ubbi kenn mënul def dara coow li yaakaar naa deux mille vingt et la waroon a jeex mais bu ñëwee ba deux mille vingt ay bakkan di si rotaat mënoon naa ñàkk waaw ñi ngi ñaan daal jàmm Sénégal ñi ngi ñaan jàmm Sénégal jàmm lan ñu xamee jàmm lan xamee te yàlla jàmm yàgg Sénégal président ñi ngi ñaan dossier bi nga jël ko teg ko suuf amul leneen lu ñuy ñaan loolu kese la ñuy ñaanal ndax jàmm dellu Sénégal ay nit nag bu ñuy jotee kon ni ko waxee rek da ngay ñëw fekk ki nga xamante ne moom moo yor arme nga mun ko téye ndax jàmm am mais ki yorul arme saa boo ko téyee rek ay mun naa am parce que ki yorul arme du def dara ki yor arme mun na taxaw fee doo gaañ waaw kon ñi ngi ñaan yal yàlla def jàmm ndegam kilifa yi wax nan xaj na dañ leen a déggul ñeneen ak ñeneen wax nan dañ leen a déggul. te yaakaar naa jàmm suñum réew moom suñu rek la mun a sasoo kon président bul fi jóge mukk ñuy toog woy wi di ñaaw ñu ngi lay ñaan nga waat xel yi bu baax a baax dellu si waat bu baax a baax te xam ne àdduna amul solo waaw li nga doon nii si ay loxo la nekkoon jóge si ay loxo dem si ay loxo jóge si loxo dem si ay loxo ba ñëw si yow kon ñu ngi ñaan nga delloo sa xel bu baax te xam ne àdduna amul solo li la fi dese kenn du la buntu xatal kenn du la def dara lenn rek moo la fi dese mooy seen mool te ñi ngi ñaan nga jeexalee ko si jàmm sa mandat ñun ñoo la ko faloon comme li ñuy wax rek bu dee ñoo la ko faloon nit ñun ñoo lay folli te si jàmm ak salaam lan la fale woon si jàmm ak salaam lan lay follee ñi ngi jéggalu ñëpp waaw ñi ngi wax wasalaam jërëjëf